salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñu ñëw ak yéen ci mercato bi vidéo bi nag Arsenal la ñu koy jagleel ndax jamono ji ñoom ñoo ngi wane seen bopp ci mercato bi Gabriel Jesus mi nga xam ne ñoo ngi leen ko doon toppal jamono ji mën nañu ne daanaka lépp yemb na waaye laata ñuy ñëw ci yaatal gi ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abone go nga abone bés cloche bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi Arsenal ak Gabriel Jesus daanaka lépp yemb na ginnaaw bi nga xamante ni nii waa Arsenal ñoo ngi ko topp ay semaine ngir bëgg koo jënd yóbbu ko foofee jamono ji doomu Brésil bi ma nga ca Angleterre vacances ya mu doon def da koo dagg waaye ba mu wàccee Angleterre wàccul Manchester ca londre ga Arsenal nekk fa gone gi wàccee photo yii ngeen di gis ba mu wàccee ca londre la ko photographie photo photo boobu noonu loolee nag la ko fa yóbbu moo di mu xaatim contrat ak club boobe su fekkee lépp yemb na daal visite médicale yaag yépp dina xaatim contrat wu juróomi at kon daal mën nañu ne su dara soppeekuwul incha allah Gabriel Jesus Arsenal lay football ci saison bii ñu dëgmal loole nag Mikel Arteta mi nga xam ne mooy tàggat Arsenal moo waxoon waa Arsenal ne leen fexe leen ba indil ma ko te loolee kat daanaka yemb na. kon daal Arsenal ma ngay wëy di defaru ginnaaw bi mu jëndee Fabio Vera am na tamit ay gone yu mu jënd ngir dolli doole dooley këlëbam boobee te tamit kii di Lisandro Martinez ña nga ca ay mbiram ngir jënd ko. ak doomu Brésil bii di Rafinha nekk ca Leeds United waa Arsenal tamit ñoo ngi ci ay mbiram ngir jënd jamono. jamono ji nag doomu Brésil bi di Gabriel Jesus daanaka signé na foofee ca Arsenal ndax lépp yemb ne mën nañu ne ndax jamono jii ma nga ca londre ca Arsenal ngir def visite médical su lépp yembee mu xaatim contrat wu juróomi at ak club boobee di Arsenal gaañu yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah